maaw na gaaw jàpp dar rek parce que Sénégal namm nañ combat guy gi guy gi rek. jili bëgg naa combat bi. premier janvier. waaw. neex na mais xam nga jili problème bi. bu ñu toppee di wax ak mbas mi ñi ci ñi kii bi mbas mi. moom dem na ba pare novembre ko fi bàyyi. man bu demoon nag ci lay gën a nekk ci combat parce que jili parce que jili jili imagine ñuy dee ci mbas mi est yaa ngi koy seetlu ku ci amul mbokku dem nga mbokk dem na ci wala sa xarit kum xam. dem na ci kon ñun bu ñu dul tiit suñu xel bu dul dem ci ñooñu rek duñ nit moo tax du ma bëgg wax ci combat fi mu nii benn xeex rek laa muy pandémie bi rus naa entraîné sax ni dama gis rus naa entraîné wallaahi ni dama gis wala mu rus wax ci leneen loo xam ne sama ji li ma ñàkk sama combat mënu ko wax mais rus naa toog naa ni ma ñàkk sama combat ak nangam pour pandémie bi nii mais na dem bis bu demee rek ci jàmm sunu borom a ko fi indi ndaw suñu borom la moom rek moo ko mën a yóbbu yàlla na ko jàmm ak salaam ñu ñëwaat nekk ci li ñu war a nekk te li ma la mën a waatal ni mooy jili bis bu affaire bi demee ñu nekk suñu bopp soo fekkatee fii lañ koy defaatee buñ toogee buñ toogee yow boo génnee da ngeen ni guy gi mi ngi ci combat bi. te bu combat bi dese une semaine dina wax ci ay tegtal yu garaaw waxuma nag nu ma koy daanee parce que nda bokkaale wu ma de ndam mu nekk suñu borom moo ko moom xaw ma luy am suba na leer xaw ma ndam fu mu nekk su ma ko xamoon du ma entraîné ji mais dinaa la bu ma ko téye du bousee. dinaa la bu jaaree fii ma ma ma ma humilier ko te buñ jàppante ma jàpp benn loxo yëkkati benn loxo supporter ne leen jug leen benn loxo laay bëreeg moom jàpp benn loxo yëkkati benn loxo supporter ne jug leen loolu moom moo lay entraîné chaque jour te koy def bu sooba yàlla incha allah bu neexee yàlla xam nga dañ def dañ dafa am doole dafa am gàllaaj dafa mën a xeex moo fi të maa ay ci ñi të maa ma wax de dama la jox rek ñaari combat yi ndaw moog Siteu bu ñu doon bëre cinq combat bu ko daanee benn du ko daanaat kaat lu wóor laa lay wax nag waa sit ñi ngi may dégg moom ay nitam ñi ngi may dégg bu dee waage nañu xool ñoom ñaar ñu kontak wala seen sit Siteu champion la de fi ma àgg mbër bala nga xam ne champion la mu àgg fa mbër benn dama ko teg à côté ñëw ma nag du champion moo tax ma waxee noonu Ama Balde bi muy rafetlu def une deux ku ko dékku une seconde wala deux secondes ndaanaan nga. attaque gu Ama Balde ku ko ku une seconde rek laa xam ne deux secondes de ndaanaan nga. il est meilleur pour l'attaque nees ku dëkk attaque am boobu mu mel ni di ñëw ndaanaan nga. foofu rek laa lay ñamal <laughs> ba après quoi. <laughs> kon de wax dëgg lak euh, ñay xaw lakk ñay yomb la waaye wëlbati baa jafe. billaahi sën sën ku fi ku ku ku ku ruux ku sën poussière baa lay rey. déggoo ma de damay nelaw damay nelaw mu ruux ma damaa ruux damaa ruux. di nga jug. saa yu jugul ko te di sax nañ bàyyi bu set rek ñu de ñu de.